jono Yon di gejel di scandale du jour de ce 19 août 2024 avons vu la vidéo bi ñëwaat. yàlla jégal maa la ëpp salaire juróom-ñetti millions moo ko tey dee moom laa la encaissé demal nga la nu ñuy buruxlu ak kan la ñuy cogg sama directeur nekk foofu rek yàlla na yàlla jégal maa la ëpp salaire moom xam na ko moom rek rek rek rek rek rek rek rek bi daru sama koy wax kuy sama directeur nekk foofu rek yàlla ma yàlla jigal maa la ëpp salaire juróom-ñetti million moo ko te dee moom laa la encaissé. demal nga laajte maire bi ak député bi boo dajalee yéen ñaatal lu ñuy buruxlu ak kan la ñuy cogg nous de ce genre boo jógee di wootewu naan al amin lii Serigne Babacar Sy Mansour le yow ñooñu waratuñ la yow abu Diallo bàyyil di saaga papaay jàmbur yi. parce que mag mu réew nga da nga réew. c'est da nga te da nga xamadi. c'est te ma la gën xamadi gën problème la problème ak problème day bloqué non Ahmed vraiment ni nga waxee famille bi moom parce que yow fi nga bokk fi nga bokk fi nga bokk boo seetloo benn Ahmed rek mais pour Ahmed Aïdara ñëw chargé nit jamais man yenn sujet bu ñu wax sax damay d'accord mhm. mais Badola, la la ngay doon ba yow c'est bon voilà. yow vrai vrai vrai yow Abou yow vrai baadoo la. te buñ dajee ci mbedd mi naa la duma. ah ëpp <laughs> waa Géejawaay yal na yàlla yërëm te may leen xolu muñ waaw waa Géejawaay yal na leen yàlla yërëm te may leen xolu muñ ci barki yonent bi waaw nee na bu muy nekk foofu ca des médias cinq millions la doon ko maanaam directeur ba sax DG ba fa nekkoon moom deuxième moom moo ko ëppoon salaire salaire tey indi na fa beneen coow ndax DG boobu bu dee ba lay mu ngi fa dina ne accord man li ma fi rey sama bopp nekk DG yëpp sama employé ñoo ma ëpp ñoo ma ëpp nettali bi pour lan la am nga fa cinq millions di mille ñun lu suñu yoon ñun xam nga luñ bëgg a dégg Ahmed Aidara def na indi na ambulance Guédiawaye Ahmed Aidara jël na jeunes yi kat wutal na leen liggéey Ahmed Aidara kat indi na ay ay potolamp ci mairie ba Ahmed Aidara def na lii ci mairie ba Ahmed Aidara jàppale na association jigéen ñi ci mairie loo loo loo leen bëgg a dégg la ngay ko suñu suñu ngañ new ci ndax sa poos la jëm sa njaboot a koy dundee ñun suñu yónnewu ci léegi mu ngi jaxasee ex patron ak ex DG nee na moom lu mu <laughs> ay yàlla ñu yàlla ma kilifa ko matul kilifa yàlla ñu yàlla musal ci kilifa bu matul kilifa c'est grave yàlla baax na yàlla na yàlla may xolu muñ yéen ko waa géej waay yéen yàlla na yàlla may xolu muñ barki bàyyi ñas si lii di fi di